jóge ci sang bu tedd bi sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamad al Bachir ibnu Cheikhul Khadim Sëriñ Touba Khadim Rasoul yàlla na fi yàgg lool Mbacké te ànd ak wér mbégte mi la ak mboolem kulli xalif général bu nekk ci Sénégal ndax nitu diine yi rek la ñu am waaye gis nañ bu baax a baax unification bi mu wane boole ñi nga xam te ñoom ñoo di ñaari kuréel isbu tarahiya ñi nga xam te ñoom ñoo di ñaari kuréel yooyu nga xam ne moo fi amoon tey ji mu boole leen benn wax dëgg yàlla def na liggéey bu mucc ayib ndax lii la maamam yu tedd ja daan def Cheikhul Khadim di boole di gën a unifié di juboole waaw waaye di jéggale bokk na ci tamit Serigne mun Mountakha joxe un exemple cest à di gis nga doctrine mouridisme gis nga buñ ko royoon ci wàllum économie ci wàllum social ci lépp luñ ko roy réew mi day def waxuma la xolal àdduna bi ñoo daw di ñëw di ñëw Sénégal di tibb si ndax dañu am organisation parfaite boo xamante ni quand même tey jii bu ñu xoolee ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha li mu jox exemple dialogue la ñuy wax deux ans ci dialogue politique deux ans ñaari at cinq cent millions yu ñu ne jege na ko lañ ci def ci les experts ñi ko doon étudier ñi doon def évaluation bi ñi doon def expertise bi ak ñeneen ak ñeneen ñu ne deux cent deux ans ñaari at ci cinq cent millions yoo xam ne jege na ko te amuluñu njariñ jubóowuñ désaccord la ñu gën a am ils ne sont que d'accord dans les dans les dans le dans leur désaccord waaw exemple la wane ni tey jii dañoo war a booloo gis nga on ne peut pas faire réussir un combat sans si on n'est pas quand même euh, si on ne fait pas bloc debout comme un seul homme lii suñ mun taxaw wane jàngale suñ mun tax daa yàgg di wane jàngale moo xam ca mbas ma ba mu duggee deux cent millions yi njëkk joxe exemple joxe jiitu ca xeex ba di toppatoo malade covid yi dëkk bi jax mu boole ñaari njiit ju juboo wutoon ñaar ay ati at ngi toog mu jubóole leen ci Masaalikul Jinaan defati na mën nam wane nag kër gi benn la kër gu góor benn waru mën a am ñaari salon benn salle bu yaatu fa war a nekk ñëpp dafa daje di péncoo benn pénc fa war a nekk nañuy doon benn lii dafa wane ni l'unité bi Serigne Sidi Mokhtar Mbacké doon woote ci tarixa yi lii la ko gën a firndeel yal na yàlla yokk leeram waaye nañu gën a roy suñ kilifa yi diine yi moo tax ñii dañ leen war di ñaanal ndax ñoom la am seen yàgg bi gis nga ñii wax dëgg fa yàlla damaa jàpp ne ñoom sax ñooy ñooy état ñooy état ñoo yore keneen réew mi kon si mun taxaa defati na maninam boole ñaari kuréel ñu doon ziare di jébbale koppar yi nga xam ne si mun taxaa lépp ci yoon wi la jëmaat ci jumaa yu sell yi du jumaay Tuubaa dong ndax joxe na xaalis bu tàkku ci jumaay euh, Maam Maodo ja ca Tiwaawoon ak feneen di santaat bu baax di gërëm waa is bu taraxee tamit ñoom it jar nañu delloo njukkal ndax nangu nañ ndigal loolu mooy muridi muridisme bi rek yoon wi rek nangu jëfe ndigal rek te bàyyi tere nangu nañ ndigal lañ woote loolu dañ leen ci jaajëfal gis nañ ni ñu booloo ànd di def ay activité di déplacé jàpp naa ne sëñ Atou Diagne sang bu tedd boobee sëñ Atou Diagne yal na si yàlla suñu borom yokk leeram dajale ko Cheikh Khadim te xasida yi mu doon yëngu yal na ko fay ba àgg fekk foofe loolu yaakaar ne tey ji xolam dina sedd bu baax fa mu tëdd ndax lii mooy unité nii ñu def ni ànd doon benn dañ dañ leen ci santaat bu baax a baax a baax ndax du lu yomb nag du lu yomb waaye bu ñu ko jëfee rek ñun ñii sax lañ ko jëfal sant nañ bu baax ndax Sëñ Muntaxa tey jikkat lii lépp lu mbégteem mbégteem yoon wi la kon ñu ngi leen di sant ñaan ñu gën a sax ci lii ñu taxa ndax yaakaar naa ne liñ naan wat gaal yëgoo buñ doonee wenu say kenn du leen mën ci yoon yi kenn du leen ëpp doole kon nañ fi yàgg lool te ànd ak wér waaye Sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak képp kuy seetaan vidéo bii boo waxee si mun taxaw yàlla fi yàgg loolu te wér yal na yàlla ful say at ba yokk ko ba téeméeri at yeneen bonus defal la ko yal nañu yàlla dolli jàmm jàmm ci la lépp xaj jàmm moo gën jàmm te it nag jàmm également euh, fu mu am jàmmaaroo du fa am kon mooy yàlla de moo fi gën a yomb yal nañ yàlla suñu borom jafeel topp yàlla moo fi gën a jafe yal nañ ko yàlla suñu borom yombal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bokk ci programme bi national international